الحمد لله الذي جل جلاله وحس كماله وتقدست أسماؤه وصفاته وعصم سحنه وتكاثرت خيراته وتوالعت الملوك لهيبته وحنت الوجوه بسلة الاستكانة لعزته وانقاد كل شيء لحزمته واستسلم كل شيء لقدرته وقد عدله رقاب وحارت عن كنهه الألباب حمدا بلا نهايات ولا غاية صل اللهم على أول سور مستخرجات من حمار باني وأول فايد وأول موحد أول حابد أول مخلص للحق وأول مفيد من فيود جود الرحمن وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورضي الله عن قطبنا وقوسنا وحبيبنا الحريف الرباني القوس الصمداني مولانا سيد الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أما بعد فيا مخسر النصار الذين يستمعون القول ulqi ilaykum jami'an assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi gannaaw ba sant yàlla sant gi yàlla ci moom joko doyok sant julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ngërmaane ko sax dàkk mu nekk suñu xutbi bi di Maulana Seydi Hadji Oumar Ndaw nekk xawsu nekk hari Farabani, ci makami yi ko yalla joxon di ñaan mané dole ko ci mom bu mat sëkk di ñaan bi al Basir mu yàgg fi lol ak mbolé ay rakam mbokk ñu ngi leen di nuyu ni bëgg na tedd ci nuyoo yi di leen siyaare di leen ndokkeele ñu del ci suñu waxtaan tafsir lu bu Ndaw na tay mom sira Omar Ndaw fiñ tambale moy mooy bëgg a waxtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min azamihi taha wa mustamilun ala qazaisin fawqa saadaati qudami wa wajhu yaasina mislu samsin qad sahidat wujuhu rahina sakal waji bil fahmi munassahun tahirun satan wa martabatan mutahhirun tayyibun sada sawi himami هو رسول نبي ليس يخلفه سو بيحسات بصريح غير منكتم آه، واو من نك ومن اعظمه بوكن اي تورم موم محمد صلى الله عليه وسلم طه ترون يو طه من بوكن اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون يو طه وهو موم طه نك محمد صلى الله عليه وسلم mustamilun aji lamba yola ala kasa isan ci ay jagle fawqa saadat yo xam kan na ci kaw al qudami ni ñi way jambar mune bu kon léegi waxoon na la ci njëlbeen ne eh, tuddi naa téere bi al-lu'lu'ul maknun lima ci def moy nasmu asma ya habibi moy way turu sopi bi dégg nga léegi tur yoy non nak mom la Siraajo man doo bëgg a jàngale ak bu ci ne maanaam na nan la fa dàngoo ci turu ne kon bokk ci turu yent bi mooy Taaha ci turu mi la bokk moom Sayyiduna Muhammad te mu ni mu tuddee taxa googu nag yàlla dafa ko fa jox rangal ko fa ay jagleel yoo xam ne maanaam mboolem sang yi maanaam xasaay si yu mu amee kawe na leen amuñu ko moom Sayyiduna Muhammad fi mu tuddee Taaha la jox. ay jagle yoo xamante ni kawe na mboolem sang yi mu ko ci wa wajhu yaasin xarkanamu yaasin waxte yaasin ci turam yi la bokk mooy xarkanamu yaasin te mooy xarkanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mislu samsi kem jant la mu ne ah, cilmaylu yonent bi sallam leeree woon kem jant la kat sahida texe na wujuhun ay xarkanam raina saakal wajhi xarkanam yi da way gis boobule xarkanam bil fahami ànd ak déggal ko ànd ak gëm ko te nangul ko ba tey bokk na ci kon tur yi du sax yaasin wax na taaha yaasin di turam yi la bokkoon moom sayyiduna Muhammad mu ne nag xarkanam mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf mel ni kem jant ci leeraay bi maanaam mboolem koo xam ne gis nga xarkanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nga gëm ko da nga texe yonent bi képp koo gis jaxaratan te gëm ko wóolu ko maanaam da nga texe daa iman gis nga kon bi mu tuddee yaasin makkaam mi ngi ko jox foofu ci xar kanam mën a mel mën na saxoon ku ñu sellal la moom sayduna muhammad dafa sell ci mboolem ayib mboolem sikki yi mboolem lu ko doon yéeféer doon ko askan la naan ko zahirun majnun dégg nga yu mel noonu ak lim indi ay azatiru awalin la mboolem yu yëpp dafa ci set wecc amul dara du ci dëgg tahirun aji laab la moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa saatan ci jëmm wa martabatan ak ci kawe ak ci daraja ak ci garaat yindi bi saa sallam dafa laab ci jëmm kawe gim am itam dafa laab yëpp dafa sell raxul dara mutahirun aji laabal la wala mutahirun aji salwisel la ba tey yëmutoon fa waaye dafa nekkoon ku laab mooy ku salwise ci jëmm ak ci kawé yépp dafa laaboon yem fu way lab gi yemu ci moom way dafa ko mëna a defal nit kenen ñi nga yi mu àndoon yépp dañu la tayyibun aji tayla mom sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi wasallam saada sangana mom rasulullah sallallahu Alaihi wasallam sawih yeex ne borom yitte yëpp mooy boole borom yitté ñoo yenentu yu baax yépp am ay yitté jëm ci kawé ñepp ñëpp bi sang na la may kawé na len doon seen kilifa kon gis nga ko fi mu nasax ci turam la bokk taahir ci tur la bokk mu taahir ci turam yi la bokk tayyib ci turu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokk huwa moom sayduna muhammad rasulun yentu yenentu yàlla la mooy ndawal yàlla nabiyun nabiyu nabiyu la mooy koo xam ne dañ koo xamal xam-xam ba mu ba mu fees dell moo xam lépp réeréwu dara ndax yonent moo gën a xam ñëpp te jiréem la te jàngul mënutu bind turam te soo ko bindee mënu ko jàng ko mooy nabi yu la ku ñu sol la ku ñu xamal la moo fees dell ba mu nekkee nekk rasul ko rasul ci turam la bokk nabi ci turam la bokkoon moo tax ma ne huwa moom sayyiduna muhammad rasulun rasulullahi la mooy ndawal yàlla la nabiyun nabiyullahi la itam dégg laysa yaxlafuhu déet ak wuutu moom Seydina Muhammad soo bi seetan borom ak yónni bi sarihin ci yónni bu wóor bu leer xayri munkatim boo xam ne duumu laa ji nëbb mu ne yonent bi rasulullahi la nabiyullahi la te amul keneen koo xam ne dana ko wuutooti ci yónni gi ñu ko yónni woon keneen keneen yàlla yónni la yónni ko leer naññi loolu dootu amati gannaawam xanaa ku ñëw doo woote tappale waaye gannaawam benn yónni du fi ñëw kon gis nga ko ci tur lamak rasulullahi turam la nabiyullahi turam la hammat risalatuhu urban wa gayrihimu nasiqatan li kitabin hakimin fahimi wa mursalun rahmatun banat fadailahu bayna nabiina kanaari ala alalami mawlana sila bi man daw waaye waaja xam ne nu me tàggee de mu ne risalatuhu risalaam gi moom sayyidina muhammad xorban ci arab wa gayrihim ak ludul ñoom arab yi yonent bi risaale gi ko yàlla joxoon dafa matale ci ci lépp ci arab yi ak ñudut arab yi ñëpp ci bokk yem risaale mooy yónni gu ko yan yóbbu dafa jotu ci ñëpp lettre bi ko yàlla jox pour mu jot la ko ci ñëpp la ko yebal naasixatan aje folli la moom risala googu li kitaabin ñeel téere xaakimin ba daa jaxate faqimin ba daa ji màgg yema gi ko yàlla jox bim ñëwee indi téeram indi discours am mboolem téere yi ko jiitu woon ci an mursal yi indi woon ko bi téere bi ñi dafa folli seen téere ya ahkaam mooy ay at yi ni si téere bi bim ñi folli seen at yooyu ya mboolem digle yi nekk ci téere bi bi mu ñuy daw foole digle yi nekkoon ci téere anbiyaaw ya kon mboolem ci anbiyaaw yi téere yi ñu indi woon doon ci digle ak téere yi ñu indi woon yëpp ba yonent bi indee téeram téeram bi dafa folli mboolem seen téere yooyu ak mboolem seen diine yooyu seen ahkaam yëpp dafa ko folli moom sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mursalun kuñ yónni la moom sayyiduna Muhammad rahmatun yërmande yërmande la ndax yërmande la mën a mota yàlla indi ko baanat bir na fadailuhu ay ngëneelam moom sayyidina Muhammad wala baanat leer na ilo ay ngëneelam bayna nabiina ci diggante yonent yi dégg nga ngëneelam moom moom sayyidina moom mooy ngañaayam ci ci ci mboolem yonent yi loolu dafa leer nañ ñëpp xam nañ ko moom daal ñu ko leer gi nan la noo ko mën a ak mu ne kan naari daf mel ne safara ala alamin bu ne ci kaw montagne doj wala kaw njumbaxteen doj amee nag safara soo taal ci kaw montagne doj bu kawe foo toll di seen kaweyaay ka nga taal fa safara fu way toll di seen safara ci mu ne sallallahu alayhi wa sallam ngeneelam noonu la leere ci diggante nabi yéen bi ba tey tur rasulullahi mursal ci turam yi la bokk rahmatu rahma ci turi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk wa qayyimun jaamihun ma kaana muftariqan fi zairi rusli min fadlin wa min karami mu ne wa qayyimun aji daraja wu la moom sayyiduna Muhammad ko daraja la waaw ah, yàlla dafa ko jox daraja qayyim ci turam yi la bokk jaami'un aji boole la aji dajale la moom sayyiduna Muhammad maa kaana lépp lu nekkoon muftariqan da aji tàkkalu ko fi saa'ir rusi ci boole minute yi min fadlin laala moom ngëneel la wa min karamin ak mbaax la mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku amoon daraja la yemata fa waaye mboolem lu tàqalikoon ci yonent yi mooy mursalin yi trois cent treize yi mboolem lu tàqalikoo woon ci ñoom ci ngëneel ci karam ci moox gisa dégg nga euh, ci daraja bu kawe yonent bu ne ak na la yàlla joxe woon ak ni mu yàlla maye woon ñoom ñëpp lañ amoon yëpp dañ dañ ko jël yàlla dafa ko jël gannaaw bu yonent yi jàllee mu jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dajale lépp loolu ba demee ci jaama mu na jamaxta fil wuddi ma kunta tufarriquhu fi zairi rusli yaa jaañoo ya allah si laa ji kon xiin gis fi qayyim ci turam yi la bokk moom Seydina Muhammad jaamix ci turam yi la bokk moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis nga ko qad ixtafa saahiran usula ruslihi moo أمدهم باتنا من وابل الحكم كفى به الله فاضلا ومختتما عليهم جامعا أستاذ وحدهم من قد اختفى دق دق كينجنا moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci zaahir mooy ci lu feeñ lan la kenn ci usula usula rusdihimu cosaan njub ñoom mursalina yi mu ne ci saahir de yent bi mu ñëwee ci saahir maanaam dafa dafa topp njeexantalu ti yi ku ci nekk noonu doxee ak yoon wi nekkoon ak ni nga jublu mu topp seen jeexital maanaam pour roy leen ca waaye nag amaddahum tëbb na leen moom Seyduna Muhammad baati nan ci lu nëbbu min waabilee xekke mi tukkee ci waameeb aji karen ci atte te mooy yàlla ci zahir nag yonent yi ko jiitu ñoo ko njëkk a ñëw bi yonent ñëwee ba jàll moom mosoo ko ñëw bi mu ñëwee topp seen yoon waaye nag ci baatin moom moo leen leen tëbbu lañ yoroon mooy ki leen doon jox moo leen leen contrôler ni ñu war a doxalee ak ni ñu war a tegee moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom daal ni ma teggee rasulaay dafa yéene ba tey xafaa xencu na bi ci yonent ba allahu bur yàlla faadilan mbirum mu daaji gën wa moxtataman muy aji mottale alayhim ci ñoom dégg nga bi maanaam xafa bihi xeeñcoon na ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam a ah, allahu bur yàlla maa yàlla dafa digg rasulullahi mu maanaam mu topp njeextal yonent yi waaye nag faadina mooy aji gën nag moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhim ci ñoom wa moxtata mooy aji mottali itam moom sayyidina muhammad ci ñoom mursalin yàlla dafa ko digal mu mu topp seen njeexital waaye def ko mu gën mu gën leen ñoom mursalin yëpp moom sayyidina muhammad yéemu foo yéen waaye da yàlla dafa ko def itam mottali leen ñoom mursalin yëpp Seydina Muhammad moo leen mottali mooy kuy mujj ci ñoom moo tëj bunt gis nga ko jaami xan muy aji dajale moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam astaata wahdihi moo way tàqali koog seen may ya ñoom anbiyaaw yëpp ak mursalin yi mbooleem ku ci ne may gi yàlla joxoon ki ñu may ko lii ki ñu jox ko lii ki ñu jagleel ko lii ki yàlla def ko nii ci mursalin mañ jeex yéen bi mu ñëwee mbooleem seen may yi yëpp dafa ko dajale moom téye ko léegi ne yàlla soog ko jox na doxana jox ko woon gaa yi moo tax du moromi gaa yi ngi yàlla ni mu defee ni nag ba tey it noonu la defe woon ci awliyaaw yi boole awliyaaw ku ci ne ak ni la yàlla maye ak ni la yàlla joxe ak ni nga yeggee ci yàlla ku ci ne bokkul ak sa morom si ajo war nag du mu ñëwee itam mu yàlla nag mboolem sa awliya yi njëkk buy mujj jëpp ku ci ne may gi ko joxon ak ni ko tëbe won leer ak ni meloon ci yalla ak ciir bi amon ci yalla ak hal bi mu yoron mu ne boolem te ñoom ñëpp ku ci ne lang nga ko mayon nga jox mako man man Omar Ndaw ma tey su bare nak yindi nga so ma jox man li mo wara jox pare e ci waxon ko waj mahlana kullama takunu tajmaahu li awliyaika ya jaami ya allah mom tim jam lim ñew wax mom rek ko ñu wax gis nga ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa bu daan rasulu malhamatin saddat malahimahu alal edalil huda wa diini wa salami rasuluna rahatun dunya wa akhiratan wa afdalu rusli nahnu afdalul umami ba tey gis nga ko kon bi Fadil ci tur yi la bokk dégg nga moxtatam la bokk moom Seydina Muhammad mu ne rasulu Muhammadin yonentub xare mom sayduna muhammad tasaddatna malahimu ay kharem wala ay ay indi malham do malham ci turam bokon rasul rasulu ndax mo yonent ñunti mom lañ ci jox xare ta xare yi xare xare yu tang jir la de nga mo rasul rasulu te yu doon xare la saddat tar malahimu ay kharem ala hidaa ci noonu xare gi mu xare ak waye ya deng ya dara tax ko def lu huda ngir sàkku njub wadi ak diine wa salami ak jàmm muy ngir njub rek moko tax muy muy xeex ngir na na minde fi jub gindee ko ñum seen yalla jëm ci yalla ak diine islam dëgër taxaw ak jàmm am na bu may ñëw boo jàmm amutoon ndax boobu jaahili ku mën fi mënoon rey dégg nga dem tëdd jabar jàmm wala nangu jabar nit denga ak notante nan sangara ah reyante bi kenn xamul lu mel ku leen neexoon nga rey ko ku jiib rey ko bi mu ñëwee nag mu dàqaloo yëpp pour indi jàmm am islam islam dafa jeexal wax moom Seydina Muhammad kon nga am turam yàngoo rasuluna ci yonent bi raaxatun nof laay duniya ci aduna wa akhirat ak alaxira rasulu raaxa ci turam yi la bokkoon moom moom itam mooy yonentu nof laay ndax bi ñëwee noflaay àdduna ak noflaay alaxira mooy am képp ku topp ci loolu ngay dund bu ñëwee la noflaay am ci àdduna ku topp ala alaxira noflaay nga kon ci wa afdalu rusul moo gën ci yonent yàlla yi moom Muhammad mboolem lu yàlla yónni rasulillahi sallallahu alayhi wa mooy ki ci gën kon nax nu ñun xeetam wi gën ci xeet yi moo gën ci mboolem yonentu yàlla yi moto ñun xeet mi ñoo gën ci mbolem xeet yi wa kamilun mukmilun man kana yatba'uhu min al bariyati min harbin wa min adami wa yaqadamu ruslu iklilan li sumratihim al qiyamati inda malik al hakim mun wa kamilun aji matlah la moom muhammad dafa mat ci lepp mukminun aji motalila man kana kep ku nekkon yat ba da ko topu minal bariri ci mbindee min xor min laala moom arab la wa min ak ajam ak làkkat du sama ku mat sëkk la mooy kaamil la comme kaamil alxuraan ni mate nekk kaamil waaye yemut fa waaye ni mate yemutoon ci moom rek waaye dafa doon mottali képp koo xamante ni toppoon nga ko yéen tamit ba nga mat sëkk ci mbindee fi moo xam arab nga wala ajam képp ku topp mottali li nga desoon ci wàllu yàlla ba nga mat sëkk kon kaamil ci turam mukk mi li ci turam li moom sayyidina Muhammad wa yaqadumu dana jiite moom sayyidina Muhammad dana jiite moom moom arusu mu sawal mbaxanaam iklil mu ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ëllëg dana jiite yonent yi fekk nag mu sol mbaxanaam iklil iklil mooy mbaxanaam buur yi di sol mu gudd ci kaw noonu waaye dañ koy xoobe wurus nag teg ci kaw gu urus noonu loolu wax naan équilibre Aliou yawmal qiyaama mooy jiite mboolem murtadin yi ñëpp topp si kawam léegi nag mosol sol mbaxanaam équilibre dégg nga mu ah, ku ñëw xam ne yonent bi saa mooy mooy mooy jiitu yi mooy wa yàq dama jiite a ruslu yonent yi équilibre mbir mu sol mbaxanaam équilibre li sumrati ñeel seen kuréel ki loolu kañ la yowmal qiyaamati kere bi sa taxawaay ba xendal maliki fa buur ba alxakimi ki raja atte moom sayyiduna muhammad mudassiran qad daahu llahu ya'muruhu an yunsira nnaasa turran siddata nigami musammilan qad daahu rabbu ya'muruhu bi an yuxayyira waahidan min alxasami mu ne mudassiran aji sangu la moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad daahu woo na ko allahu buur yàlla ya'muruhu da ko digal an yun ba mu afartir ba mu wala ba mu anase anaasa nit ñi turon mboole seen si da nek met taru mbugal mu dastir ci turam mi la bokon denga moy ki sangoon yàlla ko wo yow Muhammad nga waré nga afartir nit ñi ragalo nit ñi taru mbugal yalla ak mbugal safar ni ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakbir wa fatahir ngo kon mo ya ya ci turu sidna muhammad la bok batay musammilan aje sangola moom sidna muhammad musammil itam ci turam la bokkoon xaddaa woo arab borom bi yaamuroo do ko digal bi an yukayre ci bamu tan wahid wahidan ben nyal benn ci sidli yi musammil itam ci turam la bokkoon batay dafa sangu woon musammil mun tudd ya, sang kaju gudi yalla wacce sar mu yow musammilu ade ko wo na ko yaa ayyuhal muzammil qumi layla muy benn ila qalilan nisfahu aw unqus minhu qalila aw sid alayhi benn dafa ko ne jógal nga fanaane guddi yëpp di ko naafale ndara lu néew nga nelaw ko ci bés yàgg mu ne ko wala nga taxaw genn wàllu guddi gi noppal genn wàllu guddi wala nga dolli lu ëpp genn wàllu guddi kon mu ne ko yàlla def loo kon musammil la ci turam yàlla woo na ko di ko digal mu tànn kenn ci seen liggéey mooy benn nga taxaw guddi gi yëpp da ko da wala genn wàllu guddi gi wala sax dolli ci kon genn wàll ak suudu si kon mosamili itam ci turam la bokkoon moom Seydina Muhammad nga cër bi mu am yëpp daa naafale ba tànki di néewee moom rasulullah musammilan bi maqamatin wa mahrifatin fi hadratillahi lam tutma wa lam turami habdun wafiyun habibullahi muqtaribun yasjudu lillahi bi ruhi wa bil adami musammilan musammilan aji sangola mom sayyidina muhammad iman aji lambayolo bi maqamatin ci ay maqama wa mahrifatin akam yalla ya fi hadratillah ci hadarab yàlla ya ba mooy ci pihu yalla ya ba de nga ay maqama yo xamne ak ay mahrif yo xamne lam tutma musuko musuko xamemef walam turamita musuko koo yentibi manam lambayo na ay maqama yo xamne ak ay maarif yoo xam ne ci xadara yàlla ba yoo xam ne benn jàmm mosu ko bëgg benn jàmm mosu ko sàkku mosu ko wuti ndax amuñu ko xa dégg nga kon mu sammil ba tey gis nga ko turi la ko waaye gis nga lim làmboo yow lim sàngoo abdun jaam jaam la moom Seydina Muhammad wa fiyun baraji mat habibullahi soppe bi àlla la muxtaribun aji jege la yàlla it yasjud moy dana womatude lillahi ñeel bur yalla bi ruuxi ci ruho nga wel adami ak deram bi moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya si sujud sujud moy womatu nangul yalla mu la kon yonent bi gis nga ko mu ne jam la bu mat seuk dara mangut ci mom habibullahi la itam sottub yalla la ku jege yalla la itam ta ruuxam gi ak deram bi jëmm ji yeb dafa womatul nangul yalla leppum yalla rek lay day amut kon habdul wafa ci turam la bokk xabibullah ci turam yi la bokk muxtar yi ci turam yi la bokk moom saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa safiyun najiyun saadiqun sanadun qillun raddiyun kalimullahi sil qidami aslu nabiina wal arsali xaatimuhum fi ruuhi wal nuuri wal islaami wal xikami huwa moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam safiyun ku sell la wala ku ñu sellal la ku sell la najiyun mooy ki diyaale woon ak yàlla mooy ki waxoon ak yàlla diyaale mooy waxtaan ak yàlla saadikun aji dëggu la ci jëf ak ci wax sanadun mooy wéeruwaay bi xillun xaritub yàlla la radiyun ku yàlla gërëm la moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kalimullahi mooy ki waxoon ak yàlla sil xidim yàlla muy borom ak jiitu sayduna muhammad gis ko ko sell la ki waxtaanoo ak yàlla ku dëgg la ci mbooleem waxam ak jëfam mooy wéeruwaay bi ci kon ñëpp nañu yàlla bi ku jaaroo ci de ci moom doo yegg ci yàlla te looy mën a def itam te jaaru ci doo yegg bu dee ñaan sax boo julli ci yàlla du nangu bu dee julli itam boo jullee ba pare te julloo ci rasulullahi yàlla bëggul waaw kon sanadu bangoo xaritab yàlla la ku yàlla gërëm la mooy ki waxoon yàlla bam la ñaanee kon sax fii ji si la bokk naj ci turam yi la bokk sadiq ci turam yi la bokk sanat ci la bokk xillullah ci turam la bokk radiyun ci la bokk kalimullah gis nga ko asdu nabiyina mooy cosaanu yonent wal arsale ak ñu yónni mooy aji mottali leen itam fi ruuhi ci ruuhu wa nuuri ak wal islaami ak islaam wala xikami ak xikama mooy ak ay xam-xamu njëriñ mooy xaqiqa yéen du mooy nabiyina yëpp yonent moy mooy seen mbolé mbooleem moy yi mooy seen moy yonent bi mooy ki mottali mbooleem nabiina yi ñu waxon te mooy mille yi mo len motali ci ruuxu mu motali seen ruuxu leer bañ mat sëkk mo len ci motali islam moy seen seen jébbalu ci yalla bu mat ak seen diin mat deug mo la kenn motali seen xaqiqa it rasulullah ko motali kon yéen mo len tarbi ñu ñi yuhyil quluba bi anwarin wa mahrifatin wa xaalisi diini baxdal jahli wa sulami yunqisuha min kulli mahlakatin bi isni mursilihi sil mulki wal isami mu ne yi dana dundal moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquluba xol yi bi anwaarin ci ay leer wa mahrifatin ak muhammad yénti mooy dundal xol yi koy dundal mooy leer na xol leer lay dundee ak ci leeru maarifa mooy leeru xam yàlla yittu mooy dundal xol yëpp waqaali si diine mu aje sell ci diina wala mooy aje sellal diina moom rasulullahi sallallahu alayhi wa jaali ci gannaaw reer riir wasulumi ak gannaaw lëndëm intu mooy ki dundal kol yi ci leer a leeru maarifa mooy ki sellal diina ba mujj raxu dara gannaaw ba fi nekke nekkee gannaaw ba fi lëndëm ak tooñaa ngi nekkee yéen ñoo sellal diina gis nga ko moom Seydina Muhammad yunqisuha dana xettali diina mun jiyan mbir muy aji musal ko min kulli mahlakatin ci bépp alkande bi isni mursili ci ndigalu aji yónne sil mulki kay gu kay boroma nguur wala sama ak boroma màggaay yéen di salaatam mooy bi mooy ko diina dégg sofé ko ba dina taxaw moy ki musal dina itam ci bépp alkande mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngeen ngoko nako no itam to lol mu ko dewe ci ndigal yalla mi ko yondi yalla mi xam mooy mulku moy ki yor xesam muzakkirun nasirun li din mujtahidun bi rahmatillah mansurun ala alqasami nabiyuna almuhtadil muhtaru rahmatuna hadiyatul mursilil wahabisil karami nabiyuna tawbatun min malikin samadin tawbatuna qubbilat bi jaahihi lfaqimi moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne musakkirun aji fàttali la moom sayyiduna muhammad wala aji waare la li diina ngir diina ñeel diina ñu di diina dina ci diina naasirun aji dimbale la itam moom sayyiduna muhammad di diina ñeel diina mujtahidun aji farlu la aji góorgóorlu la itam di diina ngir diina indo sadana kon dalan waare ci diina te fàttali nit ñi diina wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina moom sayyiduna muhammad mooy ki dimbale diina itam moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy ki def bu ma sëkk maanaam ngir diina sayyidina moom mooy ki def lii kon mu sakkir ci turam la bokkoon naashir ci turam la bokkoon mujtahid ci tur la bokkoon yëpp mu ngi ko defee nag bi rahmatullahi cër man yàlla ci la ko defee Mansuur muy ku ñu dimbale moom Sidna Muhammad ala kose ala kasami ci ajo kula waale képp ku ñëwoon di dagga sant ci moom ay lay di ko ay mbir pour bëgg koo maanaam wedam loo yàlla dimbale ko ba bu ñëwee mu wax la da nga wedam yu noppi nabiyuna suñu yonente bi almuhtadi mooy aji gindi almuhtaar mooy kiñ tànn rahmatina mooy moo di suñu yërmande xadiyatul mu xatiyatul mursali mooy mayu ñu yónni ñi alwahaabi kay aji maya sil karami kay baram ak tedd nga mu ne suñu yonent bi dem mooy aji gindi ndax mooy ki gindi ñëpp ndax wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim la ko yàlla ba tey mooy muxtaar kiñ tànn moo da si yërmande ñoon ndax ci mursilina yi moom Seydina Muhammad karal maa yàlla ba mu ko bindee pare ba mbool day la jikko yëpp mu mat dafa ko yebal ne man def naa ko muy muy xaddiyee ci yéen ngeen so ormal ak ngeen sàmm ko kon kado ci mooy kado ñu yónni ñi dégg nga mu bàyyi ko ci yàlla mi nga xam mooy aji maye lépp moom yàlla gis ko moo tax ma ne nabiyuna kon nabi yi ci tërën la bokkoon moxtadi gis ko moxtaar dégg nga mursal ci doon la bokk bare nabi naa suñu yonent bi tawbatun tuuba akoon la kuy tuuba akoon la min malikin mu tukkee ci buur bi samarin kada kuñ jublu yonent bi itam maanaam ku bëri lu mu daan tuub la ci yàlla mi nga xam ne mooy malik moom sayyidina muhammad tawbat naa kon suñu tuub nag ñun xeetam bi ku biraan nangoof nañ ko di jaay ci seen daraja yonent bi al faqim baraji màgg yonent bi tawba kon ci turi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la bokkoon fu mu toll daa bëri noonu tuubal yàlla suñ tuub ñun ñun xeetam ñu ngi ko nangoo ci darajaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa harisun alaykum muhtanin bikum kay tuflihu daakilina jannatal hakami risalatul hibbi la taxfa ala ahadin qul wudduna samsu mahluman ladal umami wo moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam harisun kukar la aleykum chien muhtanin aji sonne la itam mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ku moo ci yéen yonent bi ku kër la ci xetam yi manam pour bëgg nit ñi gëm nit ñi dugg dinu islam bëgg ñëpp taxé yonent da ko lan def bu ñu xam dana bëgg ñu tuub dugg dinu islam ngir manam kër gi amon ci ñoom mu mu jàll innaka la tahdimu al ahbab walakin Allah yahdi man yasha go harisun alaikum bil mu'minina batay ku sonnon la ci quran sonnu ci xetam wi la Deng. amma hanitum gis nga ko lam lan def te lii yëpp mooy xër geeg sonn gi yeb moy kay tuf lo ngir ngeen taxé yen xet wi daa bi ma ngeen way tabbi jannatal hakimi aljanay ajati ate ji te mooy yàlla dara tax ko no jog sonn gi xeet gi ci xeet yëpp mooy borom ñëpp dugg aljanna kii moo baax moom sayyidina Muhammad kan xadis ci turam yi la bokk moxteen ci turam yi la bokk moom sayyidina Muhammad risalatu xeb bi risala ak sopp bi laa taxfa du nëbbu ala ahadin ci kenn rasulullah sallallahu alayhi risala ki ku yàlla jox mu yónni ku yàlla yónni loolu nëbbuwul ci kenn moom ñëpp xam nañu yàlla yónnoo ko muy nit muy jinne ak lu dul jinne yeeg xataa mala yeeg den gàncax yi yëpp xam nañ ne rasulullah sallallahu alayhi yàlla yónni na risala ngi ci kenn maanaam kay ko xam bañ a nango kon nag kul waxal yow mi ma jàkkaarloo ne wuddu na suñ sopp bi a jant la kon ku bëgg lay ne ko rasulaay samsu la jant la te jant bi ku fu yeggut ak fu ko lu gis kon rasulaay samsu la maxluuman bara bu ñu xam la dal umami fakkeet yëpp jant la boo xam ne ñëpp xam nañ ko comme ni xaalam bi yëpp xamee jant jant bi jant la ñëpp xam nañ ko fépp yegg وهو صحير فريد كامل قمر لا تسمعن لقال عاسر وحمي من woowu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahirun ku siiw la Seydina ku siiw la te mi yegg na fu ne nañ ko te kenn émasul ko kenn foto ko kenn wideo ko feeñu ci benn télé te ñëpp nañ ko ndax war a faanaa laka faridun ku wét la moom sayyidna Muhammad mufrad la kaamilun aji mat la xamurun weer la rasulullah taala kon saxiir ci turam la bokk farid ci turi la bokk kaamil turam la xamar turam la na ku siiwoon la ñëpp xam nañ ko mufrad la bokk na nangul tas ni ni mel moom rek la kaamil la ku matoon ñu ci lépp nag xamar la mooy dafa leer nañ ba mel ni weer kon nak la tasmahanna bul deglu yow mi setan wala yow muy déglu mu bul deglu li xali ñen aji bañ sayyidna Muhammad hasidin kër aji kanyan wahami kër gumba mune yow bul deglu ko xam dafa bañ rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala waxe ku kanyan dag añaan yuntibi de da wala ku gumba moom gisul ñun ñu gis ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam leer gi gis yonent bi ba tax ñu topp lu nañu koo taggee moom ku ko gisul kooku bul ko déglu ku kañaan ba liñ ci wax mu indi moo koy leen kaar ay magal gaag <coughs> di gàmm moo moo koy leen kaar bu bul ko déglu waaw ah, ndax ku bañ ñi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bañ yonent bi dalee wut mooy maa ñu ne yonent bi la ñu màggal nga am la ci leen kaar loolu bañ rasulullah sallallahu alayhi añaan la ci rasulullah sallallahu Alaihi wasallam da nga gumba yow liñu gis ba tax ñukoy magal mo xam judum la wala maulid la ñukoy def wala tant dara di mag rasulullah sallallahu nga am la ci leen gar kooku bam mu daa ku non rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kooku bul ko déglu mok rombol way waaw ndax luñu gis ci mom luñu gis ci leer gi gis ci mom mom gis ko fa tol tol arsalahu allah sahidan fa'adalahu sawfa yaji'u sahidan gayra musda'ami amma mazahidu mashudin faaliyatun ala al akabiri min ruslin sawi azami arsalahu yunninaku moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa allahu bur yàlla sahidan mbir seede fa haddallahu topp mu mandul ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ne yent bi yàlla dafa ko yónni mu nekk sahid inna arsalnaka shahidan wa wa nasiran wa daahiyan ilallahi bi isnihi kon yéen yàlla dafa ko yónni muy seede maanaam mu seede mboolem mursalin yi jiitu woon seede na la seen risaal nangul na leen ko seede na yëpp na wane na ñëpp yàlla nañ yónni yàlla yëpp waaye dafa ko mandul moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam saw fa yejjiw xalis naa mooy dana mos a dikk moom sayyidina Muhammad shahidan da ku ñu seede loo ñëpp taxaw kenn desut yéen bi yàlla da ko seede loo seede ko xam ne xayra mustaxami du mu raji raji ak kenn mooy du mu raji buuxante kenn ndax ëllëg yawmal qiyaam ba kay yëpp dekkee mbooleem mursalin taxaw léegi seen xeet ku ci ne taxaw naan ñoom yunt bi jot lu tan ku ci ne di wedde rasulullah sallam mooy taxaw seedal mursalin yëpp ne yàlla leen ku ne ku ci ne yàlla yónni woon na ko jàll bu ko na Muhammad taxaw seedal yeneen xeet wa jéena bi ka sahidan halal haula wala yow marka moo koy def ama masahidu masuda masuhudi daal seede ku ñu seedaloo kii dégg nga mooy seede gi ñu ne yindi saasuna bi nga xam ne moom la yàlla na ko seedeel seede googu fa aaliyatun aji kawe la alal ci way màgg yi min rusul ci yonent yi sawi asami ñey borom mucc seedeem googu yàlla di ko seedaloo moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kawe na mboolem ndax rusli yi akabir anbiya na ndax ñoom kenn du ko ci am wa basirun bi jannatin li si rasadin yubasiru sahba tahsiman li sanihimi xadalun nasirun li kufarin bi haawiyatin wa yunsira summa tasrihan bi xusrihimi moom muhammad kon saxiit ci la bokk mashuur ci la bokk moom Seydina Muhammad woo moom rasulullahi sallallahu alayhi wa basirun aji bégle la bi jannatin ci aljana yi li si rasadi li si rasadi ñeel borom ak jub mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy ki nga xam ne dafay bégle basir la di bégle maanaam di digle lu baax di bégal nañu wane aljana kontaan loo ci nit ñi sawarloo nit ñi pour ñu jaamu yàlla képp ko ne jub nga ne ci yoonam bi mun lay bëggal xamal ne aljana ja nga jëm ëllëg ak teraanga ya fa ne yu dul jeex yu basiru dana bëggal moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaba saxaba yi mu bëggal la ñoom ñëpp mooy fukki yi fukki yi nga xam ne ñoom la ñuy waxee mu basiruna bil janna ñoom garanda aljanna mooy kii bëggal saxaba yi tax siiman ngir màggal li sa ni mu ñeel seen mbir kon basir ci turam yi bokk moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaddalun ku mandu la moom rasul ku ci ne atte bi nga yelloo rek la lay jox xataa ba doo moom nasirun aji kuppe la ci safara mooy nasirun aji waar la li kufaare ñeel yéeféri bi xaawiya safara ci xaawiya kon ku mandu loon tax da daan itam ragalloo yéeféri maanaam mbugalam safara ci xaawiya wayun sir dana waar asumma way tax yi ñi tax nanguñu déglu ak waaratem woo gim ne woon ñu dugg ci ñu bañ tax na gisuñ loolu indi mën na avertir de tasrihan ngir wóoral bi bi xusrihimi ci seen ngir leer daan ne ñuy perte ngeen biir ma topp biir ma gëmoo xaddalu ci turam yi nasiitu turam la moom sayduna muhammad nuurun siraajun wa kullu rusli muxtabisun min nuurihi laamihel asli lisil adami ra'sun jamilun wa misbahun li asminatin wa amkun kasama wal xarti wal akami mu ne nu siraajun la moom sidna Muhammad sallallahu alayhi wa wala nuurun leer la moom sidna Muhammad léppam leer la siraajun lamp moom sidna Muhammad dégg nga ndax wa daahiyan ila wa siraajan munira kon siraaj turam la muni turam la lamp la te ku leer nañ lamp leer nañ la moom Seydina Muhammad la ta yàlla misaale ko lamp ndax lamp ci nga mën a toxalee ci néeg bi mu am lamp da leer nga toxalaat leer gi yóbbu ko mu daj lamp mu mën loolu te leer gi mu ba ba léegi mu nga toxalaande mosu fi bàyyi ko wa kullu rusli képp ci yonent yi nag moxtabisin aji juumoo la wala aji lo min nurihi hitu ci leeram Allah a laami he leergaraji melkati al asde ke ciosan disil adami nyel borom ak ñàkk yinti bi kon lampe bi leer naññi la ndax mo leer fep yéemul ba jël leer diko toxal ndax yinti bu defan géew tor yo waxtan ak waxtan lum gis gis ak lum yag yag ak lum leer leer mbooloo mi moom ak luñ new new sa bu waxtan ñetti nit mom lum new na dañ ño xamne dañ takk mbooloo li waxtan tak bu rafet ken du ko ci ñooñu ci bari toxalaay waxtaan du ko net le ñeneen ñooñu bëggam xam-xam yoy moy toxalu di toxalu ku ne jot ci de nga ba xam na ci gindi ay nit te li muy wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu moy lampu yeen amp yeen tu bo gis nak ci lampu yeen tu bo sallallahu alaihi wasallam boobu ci leram googu ci la ñito ba ñital ay gayam rax jit la mom sayyidna muhammad jamilun kutarullah wa misbaahun mooy lamp li asmiri ñeel jamono wa am ku ak barab yi mooy lamp itam kasama mel ni asamaan mooy lamp bi koy leeral wal xarci ak aras wal akami ak suuf kon itam nuuru ci turam la bokk siraajun ci turam la bokk raasun turam la jamil turam la misbaax turam la moom Seydina Muhammad mooy njiitu yëpp mooy njiitu lépp tey ku refetoon la mooy lamp bi nga xam ne mooy leeral jamono moy leeral barab yi lu melni ka xaras ak kuub asaman ak suuf yep huwal huda qudwatul kullihim hasamuhu allah mahdiyan min al amami huwa mum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam al huda mu aju jubji moy ki jub qudwatul haadina moy roy way way jubji kullihim kullihimu ñep ñëpp moy ku ki mo lañu jub ñi ci mom lañu bu jub xasamuhu musal na rasulullahi sallallahu allahu bur yàlla mi ne la moom ca bakkaar bu tuuti maxti yéen mbir moom muy ku ñu gindi muy ku ñu jubal itam kon yàlla dafa musal si bakkaar bu tuuti jubal ko yemu fa xuddaa turam la mahdiya mahdiyan turam la moom Seydina Muhammad mooy mahdi xarmun wajihun munirun wajhu xamarun wa qad badat ibratun bi nuuri fi sulami mu ne xarmun sang la moom Seydina Muhammad wajihun aji darajuhu la moom rasulullahi sallallahu alayhi wa ku leer la wala munirun aji leer la wajhahu xarkanamam xamurun weer la yonent bi sang la bu xam daraja te dafa leeroon naññi ba mel ni weer waqat badat feeñ na ibratun pusa bi nuuri ci leer rasulullahi sallallahu alayhi bi ci jamono yi ndax suñu yaay sa mos na nekk a ci néeg bi parce que ko gis ko bi dugg ci néeg bi leeraay xar kanam mu gis ko woy woyam hmm? kon xar mu ci turam la bokk wa jiixoo turam la mu turam la xamar turam la moom sayyidina Muhammad daahin ila llahi madahuwan li wahdatihi huwa mujibun mujabun xayru muxtasimi mu ne daahin aji woote la moom sayyidina Muhammad ila llahi jëm ci yàlla mooy kii woote jëm ci la jëm ci yàlla waaye wootu wootoon kenn jëmee ci boppam déedéet mooy wadaahiyan ilallah bi isnihi madon woon ku ñu woole itam li woo datihi jëm ci wéetal yàlla yàlla bu ko xooyit mu wéetal yàlla moom dafa nangul yàlla wéetal yàlla kennal ko yàlla ko wooteel nag mbindeef yi ñu jëm ci man itam kon dafa dañ ko woo ci yàlla mu wuyu ba jeex tàkk ci yàlla yàlla digal ko nag wooteel mi def nag ci yàlla itam xuwa moom rasulullah sallam mu jiiboon aji wuyu yàlla waaye mu jaaboon ku ñu wuyu la moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xayru muxtasim moo gën ci aji kersoo képp ku am kersa rasulullah sallam moo la gën kon daaxi ci turam la bokkoon madao ci turam la bokk mu ci turam yi mu jaab ci turam yi la bokk moom sayyidina muhammad mooy ki woote mi defee jëme ci yàlla dégg mooy ki wuyu yàlla nangu lépp moo tax mbindéef yi it wuyu ko nangul ko huwa xafiyun xafuwun saafiun sanadun huwa alwaliyu wa xaqun xayru munkatimi huwa moom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xafiyun aji teral ku mënoon a teral la mooy ku mënoon a teral ku dul boppam la daan teral nit ñi moom muhammad xafiyu mooy ku yaatu te mën a teral nit xafi woon kuy jéggale la woon ku loon jéggale saafi woon aji ràmm mooy aji tinu itam sanadun mooy wéruwaay wi moom si naa ku mënoon ku yaatu woon la te mën a teral nit ku daan la itam te da jëlale moom Seydina Muhammad mooy saafi o itam kon nga xam ne xafiiju ci turam yi la xafuwun ci turam yi ci yëpp ci turam la moom Seydina Muhammad huwa moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al waliyu mooy aji méngoo mbir yi mbir yëpp mooy ko méngoo wa xaqun aji dëggu la xayru mun katintu dëggam gi du aji nëbbu enti mooy waliyu mooy kilifay lépp mooy ku méngoo mbir yëpp ba tey ku dëggul woon te gi nekk doon lay nëbbu kon waliyu ci turam yi kon li mu xam min azamihi li muxtarami kon ñëw na ndax mboolem tur boo xam ne yàlla rek rànkal na ko rasulaay muy turam itam aqawaahu sul arsi mubliqan risalatuhu xadalan aminan wa mamunan bila tuxami mu ne aqawaahu dëgëral na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sul arsi xaras yàlla mu dëgëral rasulullahi salam may ko xuwa jox ko kattan ba dara mënu ko dammate kenn mënu ko gàllankoor yàlla kum jox xuwa rek dégg nga nga dem yal nañu yàlla defal ko waaw mubliqan mu aji jotal moom yonent bi risaala toog risaala am ka yàlla ko jox dimbale jox ko kattan ba mu jotal risaala bi ko yàlla yónni xadala mu nekk mandu moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Seydina Muhammad amin la wala amina mu aji wóolu mu aji am kóllute am xel ragulu dara nekk mandu yalla dafa ko katan doole bam am amin am modal mu dal ragul ci limay def wa Bila muy ku ñu wóoluloo bi laa tuxami lu du benn def def kon nga gis ne bi amin turam lo won ndax wa makka lañ ko bañ bañ moom lañ ko doon waaye la hitam sayyiduna Muhammad huwal karimul mukarrami li karamin huwal makinul matinu ghairu munfasimi ko moom rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkarimu aji baax la aji tedd dibi karim la karim mooy maanaam ku mel ni moom yombul karim mooy koo ku yaatu lay doon ku tabe di dimbale di jëlale di jégale di bale itam te mboolem jukku yu yu gërëm yi mooy makaarim axlaaq ak melokaan yu baax yëpp karim dafa koy denga nga koku moy karim moy ndu Musa karim la moy ku baax al mukarram, moy ku ñu baaxal ki moy ku ñu teddal ki li si karami ñeel borom ak tedda nga ki te mo moo da subhanahu wa taala kon yitu bi karim la moy ku bax la waye ya mukarram la itam ci yalla xuwa moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam almakiinu mooy aji dëgër wala mooy aji daraja wu ja mooy ku dëgër wala bu gu dëgër la gox na xayri mun fasi duumul aji kañ ji mooy duumul aji dagg mooy ñu dutaa mu ne makin mooy ku yàlla joxoon daraja nga sa Yuusufa la day naa makinun amin ko ko buum la gu ne mooy du ko jàpp du dagg mukk du dog atal matinu bi ayatin nu amilahu ablan wusulan wa zigan xayra munsarimi mu ne sayduna muhammad ata dikk na al matinu matin ci tur yàlla bokk mu di yàlla ayatin ci ay aaya nu amilahu yi dina ko dëgërale sayduna muhammad yàlla dafa indi ay aaya pour dëgërale ko sayduna muhammad lu mu wax rek indi lay preuve bi xablan mu nekk bu moom sayduna muhammad wusulan gu joti ci hablan wusoon mu nekk bungu dëgër boo xam ne xayr mun sari mi du mu ni meloon qawal qawiyul habiba wa muxtadirun fa xasa saa quwatin wa sarra saal mu ne qawwa dëgëral alqawiyu aju dëgër ji alxabiba soppeem ba yàlla mi nga xam ne moo da xawiyu mooy ki dëgëra soppeem bi wo moom rasulullah salaam moxtajirun aji am kattan la xam doole la fa xasan not na moom si na mosta quwatin borom a wa sarra bégloo na sa aramin borom a xurum ja mooy màkka ñëw kon yàlla mi nga xam ne moo da xawiyu moo dëgër la dem mo deugal habibam bi jox ko doole mu not mboole ñu amul kattan di ko jaay doole mu not len mu sayyidna muhammad lahul makanatu laysal qarmu yabluquha wa hissuhu assa amlakan sayu'tami qadamuhu allah wa safadina ala kubara wal fadlu azharu min narin ala alamin mu ne lahu ñeel na sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja yoo xam ne laysal xar mu dir sange yab la ko xaa ñu jot daraja boobu yonent bi mooy ki amoon makaana boo xam ne mboolem sange jotuñu ko fa asa wa wa hisahu tedd ngaam gi asa la notee am laakan buur yi safi utami ñe barométata yonent bi saa sa asa gim amoon tedd nag gi yàlla jox ci la notee mboolem buur yi nga xam ne ñu amoon doon leen nekkoon seen biir tata ñu ñu bi ñim not na leen fi moo jiital na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allah buur yàlla saa fadilin mbir muy borom ak muy borom ak ngañaay ala kubara ci way màgg yi indi yàlla mooy jiital yonent bi jox ko ngëneel goo xam ne gañe na ko mboolem kubaraaw fat du ngëneel nag ngëneel bi moo gën a feeñ min naarin ci safara ala alim bu ci kaw montagne doj indi sax moo gën a feeñ fuuf maanaam safara ciy taal ci kaw montagne montagne Denga mom Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bu ko defee ñeemale dar dartu wi di wax in uridu ila islam maslataxtum wa ma tawfiqi ila billah ah, na mu ñu dut lay bin mbokk yi rek te def ko hitam li waju lay kërëm faqat di ñaan yalla mu fay di ñaan itam ngeur man ci si ah, borom dar salam mu am ci itam di tawassul ci barke yalla defal mbir di jégalu itam bu amee ñumte li ci jub ci yàlla la li ci dëng ci ñun la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh